auzu billaahi mina seytaani rajiim gannaaw bañ sante yàlla julli si moom sant suñu ñaari waajur ngi ziare ku kilifa yi nga xam ñoo toog fii ji ko jiiteel nag si bam bu xam ne tey jii suñu liggéey kii moom la ko yàlla jaarale moom sama jarbaa dee di mbay ndax man entraînement laa doon dem woo ma ne ma dañuy def formation xaaruma sax daf ne ma dañuy def dañuy def formation rek fekk dañuy naag Balla Diouf benn jour xam naa jour boobu noonu ma ko ma koy wax ne ma naa ko formation mu ne ma saa yoo pare wax ñëw mu ne ma damay dem entraînement dangay dem mu ne ma ne ma dangay dangay dem entraînement ma ne ko waaw mu ne ma dañuy def formation ma ne ko ah mu ne ma waaw mu ne ma ne ko noonu mu may wax ni tuuti rek moom mooy état laay wax tey jii Macky Sall da doon wax ne daa wax ne carrément dafa bëgg employé jeune lii nii dara firndiwu ko te ñu ñuy jiiñ loo xam ne defuñ ko muy léegi nii wax mbër noppul la mbër buur la yaa ngeen dégg Bécaye Mbaye di ko wax mbër buur la lii nii chaque jour ñun ñëpp ay facteur développement la fii ne ñii nga toog fi gis nga gis fii yëpp ak ñi ñu defal formation bu paree bu pare ñëpp loo ci xamul ñëpp ay kilifa lañ parce que ñëpp seen dañoo boot famille seen ginnaaw kon loolu bu ñu koy wax suñu yaram day daw suñu xool day fees buñ déggee loolu ñu wax ko tey jii nii nii si si si seen média bi affaire daf ñu moo tax damay wax chaque jour li Gris Bordeaux laa njëkk a wax ne ko gars yi il faut jo métti bi ñu faut ñu génne ko seen biir xol loolu mën na ñàkk parce que buñu demee ba ñuy jiiñ loolu noonu non il faut ñu leeral lii rek dafa rafet président nag bu dee liggéey rek la bëgg man moom jël nañ ma moom te à grâce bam buub yi nii wax dëgg yàlla ak amandawa ak k ak ak caat daatu yaraax mais nag comme li comme li sa sama collègue bi wax rek léegi laay wax nañ jël fii 10 <laughs> basé sax sax non basé yëpp sax parce que ñun dañoo kontaan ci lii nii wax dëgg yàlla man moom li Balla Diouf la wax laay firndeel rek bëggoon naa ko def comme li mu wax rek moom sama doyen la si làmb mais yàlla dogal na bëri nañu ba mu wax métti door na ma dóor yu métti mais réussite non damay wax rek dañuy waxtaan rek yàlla xam na ko xam nga juufeen la man fayeen la mais ko dama ko taajal bool mu lekk rek ma daan ko. <laughs> wax dëgg yàlla ñu kontaan ci lii rafet na trop dañuy gën a ñaanal baax mu bugg wax dëgg yàlla ñu kontaan nañ bu baax su ma gisee sama rakk yi sama benn collègue ñu fees sama rakk di bu laal bokkoon na ci formation bi baax ma lay wax ne nag la QLC mbër dafa bëgg a def formation bi nee na nga ñëw bari waaw wala lii li moom wax na bu ma yóbbante la ah mi ngi doon comme ni ñu doon mi ngi doon kon mbër ñëpp bëgg nañu ko def jërëjëf ñu ngi jaar ñëpp daal journaliste maa ngi jaar bu baax wax dëgg yàlla maa ngi jaar kontaan nañu ci yéen bu baax daal jërëjëf jërëjëf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 wala déet am na liggéey bu nekk ci seen yaram wala déet bu ngeen jokkoo ak Serigne Seex borom tawfeex leeral lépp dina leer naññ bu dee na ngeen a amee seen i soxlay bopp jàpp ab yoon di waaja a tukki leer lu leen ci moom ba mu leer ngeen di wut place wala ngeen am place leer leen si moom ba mu leer ngeen di waaj a tuxu leer leen si moom ba mu leer bu dee yéen ñi nga xam ne dangeen di bëggante bëgg a dugg ci soxna wala bëgg a am borom kër day jaadu ngeen seetlu seen i mbir ba xam ndax dëppoo na ndax seen i rawaan ànd na te loolee Serigne moo ci teg loxo bu bëgg xam seen bidiw ba xam kañ ak kañ la ñuy sàkk sarax kañ ak kañ la ñuy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 leeral say mbir ba mu leer nañ ak foo mën di nekk foo mën di féeti jokkool ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa